مصطفى إذ جاء يمطار من تمر المدينة قل بعيره بتاعه المختار من كرم وصلي إمام موسى Gueye nee na diggante jaam yi ak yàlla seetlu naa ne man Gueye neexatul mu ne te nañu waxtaan yàlla du tooñ kon tooñ bi ñan la imaam Moussa moo koy wax mu ne seetlu na nit diggante jaam yi ak yàlla neexatul te yàlla du tooñ mu ne nañ waxtaan yàlla du tooñ wa ma rabbuka bi zallamin lil abid léegi nag imaam Moussa nee na ku war a tooñ kon ñun la defin yi ak jëfin yi ak nekkin yi ak waxin yi ak déglin yi ak xoolin yi bu ci rafatul rek yàlla am lu mu wàccee teg ko ci kaw nit ñi wala nabluwannakum bi shay'in bi shay'in la yàlla wax moom la sang bi doon toj keroog yàlla ne naa leen nattoo ay mbir ba noppi nga dem ca beneen aaya yàlla ne walillahi junuudu samawati wal ardi loolu dafa doy waar sordaali kaw ak suuf man yàlla maa ko moom yu ma ci yebal rek mu lor leen yàlla ni mu ñu jekkoo ñun ñun ay air lañu ci biir bal rek ñun ak géej ak kii bi kër yeeg ak oto yeeg saxaar yeeg avion yeeg ñun ñëpp ay air lañu ci biir bal mu tax waa ji ne maali tabibin yamutu bi daa in mu waaw gis ngeen ba tàyyi doktoor dee ci feebar te mooy yëkkatur ba feebar ba allazi muy feebar ba nga ba nga xamante ne xat sa dëgg-dëgg kaana nekkoon na raxu mu koy dañal di ko fajal ay nit fii maa madaa ci ñi romb ku feebaroon mu fajal la ko nga wér dellu sa kër fii maa madaa ku feebar mu faj la nga wér dem sa kër mu ne feebar boobu nag moo dem ba hëlëkal mu daawaa mu rey docteur ba mu ne wal mu daaw yi mu reyaale malaat ba mu ne feebar ba yemu ca xale bi nekkoon ci malaat bi ñu yónni ko ay ordonnance pour mu jënd ki ko ba mu àggee ci yoon bu oto ba fel ko wali manistara ba waajay wax woy wii kañ la mbokk yi feebar ak bis bu jot bokkuñu dara feebar ak bis bu jot bokkuñu dara ñun kay am nañu ngànnaay jarul ñuy ragalati la sang ba joxe keroog ku ko ku ko def ba noppi ne ngay moytuwaate ne gëmoo liñ la jox am déet lañu la jox ñu ne la ku ko def mucc sërif ne la jamono dina ñëw dinga nettali nit ñi am na feebar bu fi jaaroon mooy di nga gudd fan feebar bi dina la fi ba léegi nga sangoo affaire bi ba pare koo gis naan ko baay baay bégee mooy gëmoo liñ la jox li ñu ñu jox faw ñu gëm ko te yëg ni waxi kilifa la te def ci am ndigal bu wér a ku ko def ba noppi nag nga yëg ni affaire bi du la laal yaa koy gëm nag wa man daa alal yaqin alal yaqin sang bi moo ngi koy nettali keroog sërif nee na nit dafay am fit gëm dara mu koy nettali keroog ca conférence sunu yaay mère Astou mu ne góor gi dafa am benn doom ju jigéen doom ju rafet am ku mu ko tànnal pour mu may ko xale bi am ku mu nobal boppam góor gi ne ki ëpp fit laa koy may ki mu bëggal ndaw si rek mu woo ko fatoog moom ne ko ëllëg damay woo mbokk yépp lii nekk jaanu këwsu sula du jaanu dëggantaan gis nga ko boo ngi nii waa ji ne waaw gis naa ko mu ne dama koy sànni ci diggu mbooloo may ëllëg ku njëkk for rek moom laay may soxna si yow nag laa bëgg nga takk soxna si ay waay dimbali ma jaan gi jaanu kawsu la mu sànni ci suuf mu ne ko fabal waa ji arrière tuuti yuutu jaan bi fab ko yëkkati góor gi ne ko waaw nii la rek suba bu ma ko sàndee rek yow yóotul rek nga këf ko su ko defee ma may la ndaw si ndeke ja ku ko gën a ragal ci kaw suuf amul baaba sërif nee na ci ëllëg sa ñépp dajaloo ñëw toog góor gi ne en tout cas sama doom maa ko moom maa koy maye jaan gii nekk laa bëgg a sàndi ku ko for ci ñoom ñaar ma may ko ndaw si góor gi ne bismillah mu ne jalañ jaan bi di xaar waa ji for waa ji siggi ne góor gi bi ay bi démb <laughs> ku ragal ragal na ba noppi rek mu ne ko ndax bi ay bi démb <laughs> ndax bu démb bi la xam nga kooku ñàkk na bu yàgg moo tax ñaan buñ la ko joxee nga ñaan ba noppi def la ngay def dangay gëm ni ñaan bi naggu na moo tax Seydi Hadj Malick wax ko waman daa ci lii ma wax muy ixlaas ayatul kursi yu falla xeg naa si waman daa alal yaqin boo amee yaqin rek yu jab bi maaraama minal matin waaye ñu jox la mbir surtout sa kilifa jox la ko nga sangoo ko ba noppi am am ñooy moytu mais lan yow yow lu gën ci yow lan moo gën ci yow ñu laaj la ko bopp képp ku ko sangoo bul moytu kenn gëmal ni mucc nga man de loolu laa gëm te dama koo gëm-gëm gu wér man waaw moo tax ku ma jox loxo rek ma jox ko loxo wallaay du ma moytu kenn xalaatuma ko sax ah? kon xanaa kenn du seet di ñit këram mbedd yi la ñuy dajante naan bégee rek jaafaay ba kañ maali tabibin yamuutu bi daa in yonent bi wax te du waxantu nee na lu mu doon am na lu koy faj feebar bi dikk na jarul yu bari yooyu yàlla nañ ci yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla yëkkati ci réew mi ak réew mu dul réew mi def ko nekk ci barke sayyiduna Muhammad mayaat ñépp jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te feebar bi fekk na ay nit am feebar bu nekk ci seen yaram ñuy sooxaaleek moom ñooñu yàlla na wér yàlla nañu wér ci barke yonent bi kon su ko defee yooyu yëpp li ma silla kan waxoon keroog lay àbbu waxtaan ca li des ci kanam mooy wax ji mu wax ni réew mi dafa ëmb imaam Masila Kan nee na réew mi dafa ëmb man nekk maa ci yokki ne fooyewul boppam dañ ko violé te ñi ko ko def ñoo ngi ci biir réew mi ngénte li nag lay ñaan yàlla yàlla bu mu fi amee yaa ngi dégg wax ji doom ya juddooguñu am ñu ñuy ñëwaat doom yi juddooguñu am nañu tur ku leen bàyyi ñu màgg ci réew mi yàq ñiy ñëwaat ci suuf la nuuxin waxoon rek moo baax ci ñoom rabbi laa tadar alal ardi min alkaafirina dayaara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yaliju illa fajiran kaffara loolu rekk a baax ci ñoom réew mi ëmb na doom ji ñuy wax yi déggoo ko fi réew mi ëmb na doom ji ñuy wax tuumaal sëriñu daara déggoo ko fi réew mi ëmb na feebar bii door a agsi déggoo ko fi réew mi ëmb na ay jigéen yoo xamante ni dañoo bëggoon a daje futteeku yaramu neen def fi pecc boo xamante ne buñ leen ko mayoon muy wéy ba faw yooyu yépp a ngi ci réew mi léegi nag nan lañuy def ba mucc ci bi ma ci gën a naqadi nag mooy gis ngeen fi bandi yu ñu jàpp ñuy agressé sa nit ñu wana leen ci tele bi ñu filma leen jël seen kanam mës ngeen koo gis gannaaw la ñuy wane mës ngeen ko gis gannaaw lañuy wane wala ñu ful seen kanam yi mais lan moo tax sëriñu daaro buñ ko tuumaalee mbir ñu wane kanamam hmm? njàngat boobu nañ ko xoolaat xeex lislaam loolu la xeex lislaam waaye benn bindkat am na lu mu wax nit mën na cee for dafa ne wajattul islaama fi Europa wa wajatu wajadtu fiha almuslimun wa wajadtu almuslimuna fi lxijaaz wa maa wajadtu fiha fiha islaam mu ne jullit ñi nag am na fu ñu bàyyee seen loxo bañ ko laajee fu mu mu ne dimbalante bañ a yàq sa deru moroom bëggal sa mbokkum jullit la ko war a bëggal problème bu mu am nga jàppale ko ba mu faju mu ne ñi gëmul yàlla ñoo ko dese te jullit ñee ko moom seen alal la mu ne waaye ñi gëmul yàlla boo àggee ci ñoom doo fa fekk jaamu ndax siñewuñu kook yàlla ñun jullit ñi nekk noo siñewante ak yàlla ni daañ la jaamu du ñu yàq deru gor du ñu xastante du ñu saagante du ñu sàcc alalu jàmbur ñun ñépp ñoo bokk waxandoo loolu yàlla ñoom ñoo xëy di ko def ñun ñoo xëy di ko defante ci suñu biir yooyu nag bu demee ba am fu mu toll yàlla yàlla dafa am lu muy joxe bu demee ba am fu mu toll yàlla rek yàlla am lu mu joxe moo tax balaa léeg-léeg mu tukkee ci ay nit ñi mu dal léeg-léeg mu tukkee ci ñoom sabab bi koy waral ñoom ñoo koy def léeg-léeg su ko defee yàlla door cee dugal loxoom mais li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla na ko yàlla teggi ci réew mi ñaana ci mën dara te ñaan bi sang bi joxe na ko mu jëm ci sang boobee ñu war a def léegi nag ma bëkk waxtaane fukki mbir yoo xamante ne keroog maa ngi koy waxtaan ak Seydina Omar mii fukki mbir yoo xamante ne ku mu nekk ci yow benn rek bu fanaanee ci sa dënn bu yeboo bul ñaan benn rek ci dënn ku mu fanaan bu yeboo bul ñaan ndax loo ñaan yàlla yàlla dina la déglu waaye du la dégg parce que yàlla amul duraa bañ a déglu kenn day déglu ñëpp waaye du dégg ñépp dafa am ñu muy dégg dana la fay nekk ndax toogaay ba man razaqa du'aa'u lam yahrum ijaaba yàlla ne ku ma wërsëgale nga am jotu ñaan rek dinaa la fay nangute waaye duma la ko fayee ci aajo ji tax nga toog te nit nag bu toogee nag aajo gi muy tudd moo ko gën a ñor mais yàlla ne duma xañ kenn la muy ñaan mais duma la ko fayee ci li nga bëgg loolu gën a metti yëguloo ni am ajo goo bëgg mu faju nga ñaan yàlla mu ne nangu naa mu yóbbu ko ci beneen aajo bàyyi fa bi nga doon ñaanee yow te boo sañoon boobay faju moo tax nga fattu ibrahima adhami yu moo ko nettali ca marsa busra la ko nettalee ndax waa marsa ba ñoo jekki-jekki ne ne ko munzu dahru nadu la falam yustajabu du aana diirub jamono ñoo ngee ñaan yàlla yàlla du nangu suñuy ñaan lu ko waral lan moo ko waral ibrahima adhami yu ne maatat xulubukum ala asrata asiyaain mu ne fukki yëfa rey seen xol fekk génnul ci xol yi ku tàllal loxo yàlla yàlla delloo la sa ñaan du nangu ñu xool ndax fukk yooyu lëmbewul Sénégal wala lëmbee na senegaal fukk yaa ngi fi de waaye teewul ba léegi am na ñoo xamante ni balaa ñoo wax allahuma yàlla nangul leen parce que fukk yaa nekkul seen dënn fukk yaa nekkul seen dënn balaa ñoo wax allahuma rek yàlla nangu lu ñu xel mat seen xel yi yàlla nangu parce que fukk ya lañu ñu fexe xeex ak moom ba nekkul seen dënn am na koo xamante ne mësul liir fukk yi te yàlla defu ko ci moom yàllaay def lu ko neex mësu koo liir te lu mu ñaan yàlla mu nangu ndax fukk yi benn benn benn benn nekku ci moom al awal bi ca jiitu mooy araftumullaha falam tu addu xaqahu sëñ Kamara yëg nga ni nit ñi dañoo xam yàlla xam nañu ni yàlla am na moo bind asamaan si moo bind suuf si géej gii moo ko fi bàyyi muy gindax di delluwaat te ndox mi ñëwul ci ñun ku ne xam na ni géej ni mu juuroo nii bu ko yàlla yeewi woon ñun ñëpp ñu yeewee géej ni mu juuroo nii ndox mi ku fa dem gis nga ndox mi ni muy gindax di delluwaat bu ko yàlla yeewi woon ci yeew bi mu ko yeew ñun ñëpp ñu yeewee dem biir bàmmeel mais lan la ko yàlla yeewee kon ku ne xam na ni yàlla am na boo jàngatee ci géej boo xoolee asamaan si sénégalais li muy mën a mën a nettali mësuloo gis ku ne li tax ma tardé tey asamaan si suñu dëkkaa daanu dañ ko doon defaraat kenn mësu koo wax ak ñoo mën a nettali waaye ba mës ta xew patron nga baal ma de asamaan si suñu dëkk tey dafa am côté bu daanu ñu doon ko defaraat moo tax ma tardé boobu moom gisaguma ko alaaji bu saaxoo ko daan wax kon ku ne xam na ni yàlla dëgg la moo fi téye asamaan si mënul ñëw suuf si ngay dox suuf si juróom-ñaar la suuf su ci nekk am na ñu fa dëkkee yeneen xeet yu bokkut ak ñun fii mooy addima fii ñu nekk nii moo tax ñu tudd doomu aadama moo tax fii doon àddimaa suufu juróom-ñaareel ba boo déggee nit ñi naan tax tas saraa moo tudd saraa yi ci diggante bi yëpp dafa am tur te dafa am xeet yu ca ne di dund ni ñun moo tax mag ñi daan léebu xale yi naan bu leen sotti ndox mu tàng ci suuf ña fa dëkk dañoo am tur dañoo am bind suufu ñaareel bii rek ñi fi dëkkee seen jëmm yi comme jëmmu xar seen boppay comme bopp doomu aadama ci seen yàpp lañuy ñuy añee la ñuy ci seen deret lañuy naanee bu ñu paree am nañu tur am nañu tur ñoom ñépp ku ci nekk am tur am famille ak nañ fa nekkee ba ca taxta sara ñooñu seen guddi mooy suñu bëccëg laylukum nahaaruna wa nahaaruna laylukum seen guddi mooy suñu bëccëg suñu bëccëg mooy seen guddi ak yeneen ak yeneen yu ca tegu ci ñoom kon nit ñi yëg nañ ni yàlla am na ndax suuf saa ngi nii yaa ngi dox ci kawam di ci tabax ay kër di ci dawal oto te pëtëxul am déet leen na rek bu ma la ko waxee nga yëg war naa yëg ni yàlla am na xanaa nooyi gi ñuy nooyi alaaji bu saaxu nee na saa yu ñu xëyee amul kuy ëppale nekk ñun ñëpp ku ci nekk dana nooy noqi cent vingt quatre mille noqi ci lay yem amul kuy ëppale moroomam nekk alaaji bu saaw nee na amul borom pax yu yaax amul ba borom pax yu tuuti amul kiy côté ay yësam amul kiy nelaw ñépp koy nooyandoo te ñoo koy yemle moo tax boo ko côté sax léeg-léeg booy nooy gisoo yiy génn ni muy bëri arrêtal sa nooy yi nga seet nga fàtte ko tuuti taxaw buy génn yu bëri mooy génn ndoo parce que yi nga côté la yàlla di génne ma ne noyyi bi rek bu ko yàlla téye woon ñépp ñibbi àllaaxira kon xam nañu yàlla am na mais joxuñu ko àkkam waa ji nee nag ku joxul yàlla àkk gi mu am ci yow nekk loo ñaan yàlla du nangu joxuñu ko àkk bi mu am wala boog ma ne am na ñu ko joxul àkkam ma def xadiis bi sang bi di faral di nettali kullu taajirin faajirin illa abi bakrin képp kuy commencé rek kàccoor nga ba des aboubacar omar ne ko waaw nabi ñun ne mu ne kuy defee ni aboubacar di defee rek yaa ngi ci ginnaaw aboubacar du ma fi nekk naan kullu faajirin taajirin illa aboubacar wa omar wa ousmane hadis ba dey gudd mais nee na ku jëfee ni aboubacar di jëfee rek ci aboubacar nga bokk moo tax am na ci ñoo xamante ni benn boobu moo ngi ci seen xol di lëmbe ba léegi wóolooguñu yàlla ba léegi foog nañ ni yàlla amut am na ñu foog ni yàlla amut parce que kuy def lu bon te sa bakken tere la nga lànk iblis ñëwul nga lànk fexe ba def ko yow bàyyi woo yàlla xel waaw yàlla dañ koy jox xàq gi mu am ci yow te yàlla dafa am xàq ju bari ci ñun te yàlla billaay ak a gore bu doon nit da koy taggee ko gore la parce que xam nga lu tax occupé wul kenn fajar boo yeewoo ñaat ñaata ràkk ngay julli ñaar ñaari rakk rek xoolal boo paree fajar fajar yan heure lañ koy julli du 6 heures wàññal heure yi ba deux ba deux heures tisbaar ñaata waxtu la huit heures yàlla ne nekkal ci sa bopp te ñaari rakk rek nga ko jox fajar boo baadoola ba tisbaar romb la yaay baadoola pire parce que li la yàlla may bëri na nga fabaat ci yëfam sonalul kenn kon xàq gi mu am ci ñun war nañ ko ko mën a delloo te yàlla xàq ji soxlawu ci dara ci ñun la jëmaat ndax man la saalixan fali boppam waman man asaa fali boppam wa ma rabbuka bi zallamin lil abid affaire yépp ci ñun lay dellu te ñun mënuñoo defal yàlla bu joxoon yàlla xàkkam du jiiñ nit yàlla mu toog te miimu ko kuñ jiiñ yàlla miimoo ko rek yaa ngi koy woote da dangay da teggi ne duma yàlla kon araftumullaha falam tu addu xaqahu nit ñi dañoo xam yàlla ba noppi te kenn joxatul yàlla xaq dana tax ñaan yoo ñaan mu takk ci kaw asamaan si du àgg muy benn bi ko ñaareel ibrahima adhami yu nee na qaratumul qur'ana falam taamalu bi boobu moom moo bëri nit ñi jàng nañu alquran ba mokkal ko waaye jëfeetuñu ko wala boog ñi koy jëfee bariwuñu jàng alquran ba mën koo firi alquran ne la njaaloo baaxul nga tiim ko te sa xel dawul ca aaya ba est-ce que jëfe nga aaya ba jëfewoo ko jàng alquran ba mën koo firi di luubal alalu jaambur alquran bi di wax ak yow nga ne ko duma la déglu dama bànk est-ce que jëfe nga alquran jàng alquran ba mën ko lu la arrangé nga ciy jëfandikoo lu la arrangé wul nga ne doonoom garaawul est-ce que alquran la kon nit ñi dañoo jàng alquran ba noppi te jëfewuñu ko te ku ku ñu jàngal alquran wala ku ñu ko nettali atte yii la wax ba nga xam ko te jëfewoo ko jarul ngay tàllal loxo yàlla parce que yàlla indil na la li ko gënal te tegoo ko fa nga ko war a teg muy alquranul karim inna alqurana huwa almiizaanu taarifu minhu maa xawayta min al aswaaqi wassadami Seydi Aj Malik nee na alquran mooy balaas bi ñuy peesee doomu aadama ndax gëm na rasulillahi wala gëmu ko te yonent bi mooy affaire ba xoolal ñu balaas biñ ko wutal pour ndax ndax bëgg nga ko wala bëgguloo ko alquran la kon kay ko saboota alquran jaratul ngay ñaan yàlla ad'uni astajib lakum fu mu ne mu ngi ci alquran nga saboote alquran bëgg gëm baat boobu kese yàlla ne waa ji ne nekk loo ñaan yàlla du nangu muy ñaar bi ko ñetteel mooy add aytum xubba rasulallahi wa taraktum yi koo gis mu nga naan maa bëgg yonent bi ay waay maa bëgg yonent bi mu ngi ci sama biir xol mu ngi ci sama biir xol maa bëgg yonent bi te sunna su yonant bi bu la dab rek nga ne arrangé wu ma ku bëgg yonant bi dangay jëfe jëfee sunnam wa laysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabi an sunnatal muxtaari taxtanami nee na njariñ nekkul ci kiy woote ni bëgg mbir te jëfewu ko njariñ amu nee na na nga topp sunna su sayyiduna Muhammad nga màng koom waaye jamono joo xamante ni rey sunna jël sunna def ko xar tëral ko rendi ko koo wax sunna rek mu teggi tànkam bu ñu demee ba àgg fa nekk ñi ko ñi mu nekk ci seen biir xol te ñuy jëfandikoo sunna ci loo xamante ni tegewul fenn bu ñu tàllal loxo yàlla waaja nee na yàlla du nangu mu ne ba ca topp mooy ad aytum nijaat najaata min an naari wa rammaytum fiha anfusakum sëñ Camara koo gis mu naan bëgguma dugg safara te saa yoo xëyee yaa ngee jëf lu lay jëmale safara kañ nga ciy mucc ku bëggul dem safara dangay ngay jëf lu lay jëmale àjjana am déet mais bëggoo dem safara jëf ju ñu dégg ci jëf ju ñaaw yaa ko def te naan bëgguma dem safara boo wattuwul doo ci mucc te loo ñaan yàlla du nangu te li gën a yéeme sang bi moom ma koy paas yaa man yuridul jinaana xuld faqad di man talabal miftaaxi tuxtarami miftaaxu tuxtarami ah kon su ko defee ku bëgg a dem àjjana da ngay jëf jëf ju lay jëmale àjjana boo bañee dugg safara da ngay jëf jëf joo xamante ni day tax nga mucc safara keroog rek sang bi moo ngi koy firi Serif Ibrahima Haydara At-Tijaani borom xam-xam ba keroog moo koy wax aaya gii mu doon wax fii keroog la am la am na jaaxal na ma minka wa man tabaaka minhum ajmain waa may moom est-ce que laajtewu ko keroog ku gis aaya boo xamante ni yàlla nee na àjjana dina fees yàlla nee na de safara dana fees kooku day teg sa alquran la ca geenu suratu saab la am la an na jaaxal na ma kan iblis min ak ñan wa min man tabaaka min hum nekk ajmain gis nga aaya bi ni ko yàlla tëggee naa la feesal dell naa feesal dell safara ñan iblis yow mi le yow mi le ak ñan ak ñi la topp ca ñoom ñoom ñan xeet yi nga xamante ne yàlla wàcce na risaale ci ñoom xeet yooyu